Mantoulaye. ñi jot a identifié. foofa na. waaw érage. ngeen may ma une minute rek. Mhm. ma nuy leen ziar leen. Mhm. baalu ñëpp àq. Mhm. baalu Sénégal yëpp àq. baalu Sénégal àq baal Sénégal yëpp àq. semaine bii wala ci weekend bii sama tur fees na lool. ci lu juróom-ñeenti tur seq mais jàppewuma ko nattu dama koy sant yàlla ndax man am naa tur am tur ndey ak bàyyi sama doom moom du Moustapha Diop la tur comme ni mu tuddee Mamadou Mansour Diop am na tur am na turu yaay ki ma àndaloon defi njombe am na tur ndey am na turu bàyyi moom am na tur ki dee ci seen loxo amna tour amna tour ndey ça fait neuf personnes. Mhm. y yalla dogal ni ñepp y tour la tudd moy le fils de Mansour. man mhm. dama ko jappé ak sante mhm. parce que population bu Sénégal bu amé 17 millions millions personnes. 17 millions. nga juddoo ci ben village bu y yalla dila dimbali ba la Sénégal xam la. ba bu kenn sax ko identifier identifier ko à ton nom. defe naa ni liggéeyaloo yàlla wala nga gën waa Sénégal walla nga lebal leen li tax fu ñu la tuddee ñëpp xam la. bu la yàlla defalee sutura defal la teraanga nga sos kër sos njaboot yàlla may la fukki doom ci biir doom yooyu mu la may ñëpp nekk ci sa waaw ku nekk di jàng ngay def ci moom yar bi sa baay defoon ci moom. Mm. yàlla génne ci kenn ku la tër lu mat fukki at nga joytu ko képp koo am kenn kooku la tër bu defee njombeem bu fekkee dellu woo ko ci nattu yi yàlla di nattoo ab jaamam. Mm. ma xam ne doo jullit doo gor. Mm-hmm. Mm-hmm. assumé naa toutes mes responsabilités que xale bi def li bon et mon fils aîné waaye moom rek mu nekkul ci samay doom yi may contrôler comme ni ma sama papa jàngale woon yar ma def ci moom yar boobu malheureusement damay nangu ne sama dom la mais ma bolé ko ci natou yi nga xamni mom la ma yalla nattoo. Hmm. ba mu ñimé def man bayam lu mu ñëwut ta def. ba muy dem fo xamni rakam du fa dem amul kenn ku fay dem sama ay doom. Hmm. kon damay japp ni natou la. Hmm. mu ma yalla teg. mo continuer nak di demander la justice. que chacun assume ses responsabilités il a 22 ans. que justice fait son travail. mo continuer aussi di prôner toujours que faw ñu delloo ci wat Sénégal peine de mort man gënuma kenn sama doom gënul kenn bay def naka su dul noonu te dara du ko ci fekk. maa ngi demander justice def liggéeyam ma ngi demander ñu delloo soit peine de mort mais ma ngi demander itam ni nañu ma baal ma baal ñëpp itam baal naa ñëpp. Mm. parce que tax ma baal naa ñëpp mooy Mansour day day liggéeyi wàcc dem këram toog. uuf ay njabootam nekk dans de très bonnes conditions. alhamdulilah mm. mm. sant waaye nag doom ju fàqee koo ci man itam. man may bàyyam. waaye doom joo xam ni dëkkul ak yow nekkul ak yow te def nga lépp pour moom. Mm-hmm. <laughs> loolu nga man mm-hmm. moom bu optee leneen nag ñu askanale la ko. nangu naa. mereewu ma kenn nag lu ma ci waaye tudde mereewu ma kenn. Mm-hmm. waaye dama ko sante yàlla ndax gënuma waa senegaal lu tax fuñ ma tuddee ñëpp xam ma. liggéeyalu ma waa Sénégal liggéeyalu ma yàlla lu tax fu ma ñëpp xame su ma amee benn doom bu mel noonu dama koy dugal ci. dambak nattu yalla mm. ndax innama amwaalukum wa awlaadukum fitna man nangu ko ko yalla bu demander justice de liggéeyam demander itam ñu dellu peine de mort parce que nit di fo du jamais ak bakkanu mm. je pense que hein, commentaire parce que alaaji dit mm. wax tay wax nako avant fi ci teus bi wax euh, chimère chumère loolu buñ ko mënoon am rek yàggul toog na fii moom alaaji wallaahi ne jël na doomam yóbbu gendarmerie tës bi na di ko wax yàggul mhm. wax na ko wala ko boo amoon rek nga may ñu ko rek ay weer ci ginnaaw la je pense yàgg na ko wax may na ko jàmbat yàlla mi ñu tim xam na loolu jàmbatee na ko fu ne lii rek moo ci suñu commenté nekk jàmbatee na ko fu ne waaw te loolu moom bu la ko ñëpp seedalee moom daanaka yow moom sa responsabilité dégagé nga ko dégagé bu koy def jàppale woon xale boo ko juree. ajali ko màkk sax. ngir mu baax. alaaji ajal na màkk 2015 doomam pour ñu baax. alaaji day toog cuy ne ma sa rakk ja génne naa ko. ma ne ko lu mu def mënuma lii la def maa jël sama oto yóbbu ko gendarmerie ban ma ko kalaamee alaaji moo njëkk nekk victime doom ji. ci mhm. leneen ak leneen ak leneen. loo xam ne mhm. ko wax. mais man am loolu. donc jarul sax ñu ci ñu ci ñu ci dama ko fekkee pour wan la na rek moom jóoba juba jaanam wàcc na ànd nañ fii ci otoom ñu taxaw fii di waxtaan ci bopp koñ mhm. ci bopp ma ne ko waa sa waaye dama boobu mu ne ma déedéet parce que dafa am oto bu ma doon jënd pour Moustapha laaj ma oto bi lan la Dodge mi ngi noonu yow gis nga oto fekk naa lépp bu baax ba muy mottali waa xaalis bi ñun ñaar ñoo toog lolu kenn duma ko netali man maa ko. tol ko bergerie d'une dizaine de millions. dama ne. mais ku beug bon nak no ci dara. dama ne. nattu yàlla rek cinq millions 6 millions pour dox ko nit. muy def la navette entre bir mbour ak suma nag yooyu te man ci tag wallahi pour am ci lu mu japp rek mën baye yenn yi. ala di gatte na la waxu ñu nak yeneen yi waxu ñu nak yeneen yi mais gatte nga la ma tay mo wax yàlla may lu xolu muñ rek te ñëpp xam mm. nañ ne. tax yàgg nañ ko wax ci tës bi xale yi. wallaahi ñooy nattu seen wax li nga xam da def loo mun nga war a def rek na def. la fekk. déglu la waxoon fan ci doom ji déglu. tout le monde koy def jàppale sa doom. baax jàppale woo ko de baax na. waaw baax na. jël ko yóbbu ko ñu gaa yi redressé la ko moo gën koy bàyyi ci kër gi. jooyloo sa yaay rek. baax na. yàlla musal ci jooyloo suñuy nay. dafa muy mujj. lu doon waaye lu a seetlu mhm. ah. nëpp nëppal doom. Mhm. Mhm. nëpp nëppal doom mooy dëgg de alaaji. donc tooñ da teg ci yoon. mooy yoon de doom du fooy way juróom. wallaahi dëgg nga wax. wallaahi dëgg nga wax alaaji. dëgg nga wax ma ne ci mujj bii bii maam bii. sama yàq na oto jàmbur ba nëpp bëgg a daw gaañu ci dem hôpital ànd ay copain ñu koy nëpp nëpp li jéem a jaay affaire affaire yu guerrier hmm. sama kër damaa taal sama ñu fekk hôpital ba nekk booy bëgg génn rawale ko mën leen aw aw leen sama kooku noppi hmm. taxaw fa yàq otoom woo gendarmerie ñu jël ko jël ko yóbbu hmm? billaahi wala ansi bii avant may ñëw fii avant may ñibbisi ñëw jël ko leen na fay ki mu yàq alalam parce que fekkoon da ko yàq toog ñu négocier ko mais da koo yàq bëgg a daw ba noppi jëli ak gàngam. ay copains ñu koy jéem a protéger. ba ni booy booy gàngi xoolal ku ni ma père ma yow dugg ci sa ba kenn ni ma père. dara nga boole ko. damaa taxaw ni du génn ci hôpital bi du bouger yow taa du ko bouger. woo ko woon oto bi mu ñëw mën ko dara fay woo gendarme ñu ñëw ñu yóbbu leen. kilifa da ngay doon responsable. li anamu. mbala ba ci loxo gendarme laa ko bàyyi di ko ñu dinaa leen balaa parce que salaatul faatiha bii nga ci mujj bii. non nga koy wan yoon bi donte après di nga dem. c'est vrai que mais da nga koy wan yoon bi dawal moto. parce que bàyyi ñu moto su ma tàggoon dawal koo tàggu teg diil ànd ak da koo tàggu da koo mbëkk yàq alalu waa ji bu noppi. teg gaañ ba nga daw daw dem. non da nga koy wan ne nii la nii la ñu yare. ma taal